Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, ah, la puissance. Salam alaikum. Magnu nuyu internaute Marodi TV Nous nous suivre de près ou de loin bon je me présente je m'appelle Carole Valérie Andrade alias Eva de la série Paul et Marichou Eva actrice de cinéma ñu ci et Marichou ñu actrice. bon voilà en fait sama me xarit ma contacté sama frère muy Omar Diop Pod contacté parce que dañu soxlo kenn ku jouer rôle Eva. après au début c'était un peu difficile parce que le temps que moi convaincre parents et tout après l'équipe équipe dit, voilà ñu insister pour que nous, parce que il le tenait à cœur voilà après si la ñëwee par la suite d'accord jouer le rôle Eva. est ce que vous nga tout tuuti ci parents Vous nan nañ def ba d'accord, actrice cinéma. <laughs> C'était pas facile nak au début parce que mon ça m'a pas pas xaawoon na et tout après si par la suite pote avec directeur bi suñu directeur ñëw jéem me convaincre parents yi après voilà ma xam ne carrément ñi yaakaar nañ ci man Lolo ma gëna motivé motiver tey jii voilà ma bok ci série bi. légui parents yi accepté nga nek actrice de cinéma booba ba léegi est-ce que am nañ ci déception wala ay regrets yu démé non non amuñu ci ben déception parce que voilà xamné dem nañ ba comprendre ni li ben passion le ben liguey la ñu jàppee ko comme yeneen liggéey yëpp c'est ça. d'accord ñu gisoon la ci saison une bi foofu la ñu bëri xamee ñu bëggoon xam say meilleurs souvenirs ci saison une. sama <laughs> meilleur sama meilleur souvenir mooy bi ma àndee ak Pod ak Mia Sali parce que loolu vraiment dama ko dund daal je me suis mis carrément dans la peau du personnage ma ànd ak pot loolu nak moo loolu loolu voilà mo ñu gëna rapprocher rapproché ñu ñaar ci scénario bi dama ci dugg parce que dafa mel ni tey jii nga ànd ak sa jëkkër ak sa doom ngeen dem benn sortie voilà c'était émouvant daal. d'accord daf ma touché. xol bi yow rek rek doo ko mën a bës jox naa la lépp lépp lépp lu ci des topp naa la fépp fépp fépp ba nga sës. Eva, je suis plus que jamais amoureux de toi. Et je ne sais même pas si je parviendrai un jour à vivre sans toi. aussi warna am ay mauvais souvenir est-ce que mon nga ci wax touti mauvais souvenir euh, wa moy commande bi non commande bi dama mère, mère. mer commande bi dama mer bay saxaar parce que carrément may ngi woon dëgg ci bi rôle bi en tant que jigen ñu may commandé lo té ma war mëna dugg ci wañ mais lool yépp après dama comprendre ak appel yi tamit commentaire yi je mon noonu carrément son nom. xam na ni jigéen moom franchement ay commande waru ko war nga dugg si waañ voilà def ni sa morom jeeg yépp mais bon. mais amoon na ay rumeur yu doon daw ñuy wax ni yow ak euh, Marichou neexoowu leen noonu yooyu ay rumeur doon daw la dañ koy dëggal <coughs> que noo réagiré dafa mel ne dëgg loolu moo amoon yaa ak leen woon. non du loolu sax. C'est vrai que j'ai un fort caractère nag. Mais c'est vrai qu'au début, mag moom xaawuñu woon déggoo noonu parce que ku nekk da nga carrément ci peau personnage bi da nga doon dund carrément nag rivalité bi lolo taxone tay ji mag mom on s'entend on s'entendait pas trop bien. sa jaabante fi ne sax ci bir kër gi dérangé wu ak mo doon neex tay sama yef tak la ñaare kon dina la ouf ci bir kër gi ndax su boba sama jabaru yëf ngay doon xanaa d'accord nga jànk Marichouf man wujjantewu maak yow sama doom moo ma fi indi te pot bu ma ko bëggee duma ko bokk ak yow li nekk sama diggante ak pot nag moo gën a foor fuuf li ngay dund ak moom ndax dama laa jiitu ci xolam effort bi ngay def pour téye ko ci kër gi effort boobu lay def pour ñëw gis si ma ah bon mais au fur et à mesure dem nañ ba ku nekk comprendre sa morom maintenant nak on est des on est des amis voilà d'ailleurs di ngeen gis même suñu snap yi tamit. d'accord d'accord légui say relation ak euh, Marichou ci lan la tambalé ba ngeen nekk ay xarit. <laughs> ci lan la euh, moi presque ci fin la première saison bi. après ku nekk da nga da nga comprendre sa morom di nga xamné genre lii série et tout voilà daal jarul emporté wu fini nii ñu ñëpp ay frères ay sœurs lañ donc euh, yenn yi jaru ko. d' après on a compris. Hein. d' ñu ñëw ci ce rôle ci série bi ñu gis ne da nga am caractère. est ce que caractère bo mo nekk ci yow dans la vie réelle. léegi teggil na leen ko. yow bëgg a toog wala. naka nga mëne jël décision bu melni da nga fàtte ni bëtt sa jëkkër yow doom. imbécile C'est vrai que, voilà, on a un caractère beau fort, Tamit. Mais, ni moi, mais si c'est revenu, moi, mais le moi dans la vie réelle. Voilà, c'est ça, mais le moi dans la vie réelle. Dans la vie réelle, quand on a comme Marichou. bon, bien vrai que duma Marichou, nak, moi comme Marichou, bon que de femmes. Mais Eva, on a une astuce hein comme yan genre astuce non non mais loolu dama koy denc kenn du ne xoolal fii nga juddoo Sénégal ba gagner y a un mot astuce. Hmm. jonge wo ku nekk ak sa ah, mais doo ci wax benn rek pour sa si lay de loolu ma denc ko rek. ah dafa mel ni jonge woo de. <laughs> garaawul. Ah, mais koo koy dencal. Ah? jonge yooyu sa artiste yooyu koo koy dencal. koo koy dencal non bàyyi ma ko rek. <laughs> léegi ñu ñëw ci sa vie boo xam cinéma est-ce que am nga yeneen activité parallèle bien sûr. Je suis étudiante en LSG3 marketing communication. à part étudier voilà Si c'est bi d'accord mais amoo beneen activité professionnelle. Non. ngay jàng rek quoi. Mais c'est waaw. mais c'est projet d'avenir lan le cinéma ou wala C'est samay projet waaw tabaxal sama yaay kër bu ngande et espérer tamit bëgg sama yaay fier de moi. voilà et aussi entreprendre parce que tey jii bëgguma bëgguma dem donne bien femme bu soumise buy compter ci kenn man je veux être indépendante parce que bëgguma yaakaar ci kenn aussi. d'accord comme ni ngay joué ci série bi non nga bëgg mel. waaw c'est ça nag. waaw léegi boo amoon benn message bo xam dang koy lancer ñuy sétane pot de Marichou lan lay doon. <laughs> bon fi on a tendance à confondre. Euh, sa vie réelle ak li nga joué ci série bi té am na différence mais lolu façon équipe technique bi lolu mooy sen souhait que ñëpp nek carrément ci bi série bi té parce que am na des fois damay génn ci mbéd bi ñu ma naan Eva ñu ma la baigné Eva yow rek laa jéppi damay seetaan commentaire mais lolu yëpp man ay reetaan damay def dama si contente ben instant parce que damay né carrément que ni franchement kon ni may def je voilà je demandais que réussir n'a comme mais je ni marqué esprit li nga xamantene ne passé la ko dund moy bi ma mais j'étais étonnée ne def ben pas té amul ku nuyu suñu amul amna ben instant ben policier moo doon pour nit yi ma avancé dama ko dund ma vraiment ni da nit yi ñi amuñu amuñu seen fay. Eva lan mooy ce mot de la fin. Ce mot de la fin <laughs> bon je remercie tout le monde remercier équipe technique bi di leen di encourager ñoom tamit nuyu samay frère samay sœurs, acteurs yi remercier waa team Eva yëpp. ndax chaque fois bu naqaree bu neexee ñoom ñoo fi nekk di ma satal vraiment ñoom aw ma seen fay. Je vous envoie un gros bisou. Watim team Marichou aussi duñ la may dara Ding lay critiquer di la clash souvent loolu di tu t'en fous. Gros, c'est la puissance, c'est la puissance, la puissance.